am na ñu la kon ku dee ku ne nga ñu sang am nga ñu la waaye dafa wax mu ni maam Seydou Hadji Malick si góor gi Cheikh Modou Ba moo ko jullee dina juumul si baw waaw juumul sax nee na góor gi Cheikh Modou Ba moo ko jullee comme li muy wax. ci bi sa maam Cheikh El Hadj Abdou ci gannaaw bi mu génne àdduna la ñu ci ay bindam ba wax ci baam Cheikh El Hadj Malick ne ñan ñoo méngoo sang ga càng ga ak jullee ga ku sant gay boo ko waaw nit buy wax war fu mu teg comme nag moom lijjanti woon ku sang maamam ku ko jullee. bay lijjanti woon sunu maam bu ko sang ku ko jullee. dëgg yàlla ko wax ni di jullee sunu maam. Mmh. góor gi mu ma fuute moo jullee Seydul Xaaji Maalik. waaye danaa am lu ma indi tuuti. Mmh. mimi xiraasu dara. Mmh. góor gi alxaaji Kebe moom moo ko dalal boobu daanaka fukki at ak ñeent laa am ñu ma ko dalal bu tooy lalal ma sajjaada bu xonq dégg nga mën a sëñ ma di ko jàng ci moom bu ma demee maam Abdou ne ma boobu seeti maam Abdou naan dafa daan neex pour rek mu kontaan waaw bu bu ñu waxee ñuy tari nag boobu tari mokkal daf lay neex ndax bi ñuy dalloo Ibnu Ashir ci loxo sëñ Babacar Abdou Aziz di ñu jàngaloo maqaamatul xariri xalit di kaari laa ko waay daanaka boobu sax alquran sax wàccaguloo si am fa nga war a jeexale muy sonn sëñ Babacar Abdou Aziz buur loola nañ la ko teel a xamal